ñu dikk ak yéen kon ci li nga xam ne moo génn ci compte Touba ci kanam ci atum deux li ci génn total bi boo ko xoolee mi ngi toll ci un milliard huit cent soixante cent dix neuf mille six cent quatre vingt cent soixante dix sept millions six cent dix neuf mille six cent quatre vingt douze loolu laa bëgg a ñëw ak yéen ci détail bi naka la génneeg bu ne la fa mu dugg bu dee lu jëm ci réalisation mooy liggéey yi li ñu doon def loolu. bu fekkee ci poste de santé euh, Boberel la un million sept cent quarante sept mille six cent ci poste de santé Kër Gol un million sept cent seize mille cinq cent Sànce bu Ndaam moom mi ngi en cours noppeegul waaye ci at mi def na ci vingt vingt et un millions six cent soixante six mille trois cent treize. bu dee sa ci sànce Touba Ndiarème vingt millions cinquante sept mille quatre cent quatre vingt six ci sànce Daaru Xadim neuf millions neuf cent trente cinq mille huit cent quatre vingt ci chantier Touba Sam mooy fii ñuy def machine bi nga xam ne moo war a defar pavage ak yee ci àndal yee ci ànd ci at mi def nañ ci dix-huit millions soixante-deux mille huit cent cinquante bu dee ci chantier université bi nga xam ni moom la ñuy defar te mi ngi toll ci finition bi yaakaar nañ dina noppi bala yàgg cent quatre-vingt-onze millions neuf cent quarante-quatre mille cent quarante-quatre bu dee opération defar yoon yi mooy li jëm ci tali yi ñu doon defar rek. Euh, puits d'infiltration yeeg assainissement beeg yi ci aju yëpp lim li ci dem ci atum 2021 mi ngi toll ci 687 millions 408 mille 539. ci éclairage publique muy lampi mbedd yi yi nga xam ni ren Touba ci kanam jënd na ci juróomi junniy lamp boole kook lamp yoo xam ne mi ngi jóge ci ak ay potom poto lamp yi nga xam ne moo jóge ci post contrôle bi dem ba ci corniche su Daara Jolof toll ci 180 poto ak seeni montage ak fere ci aju yëpp. boo ko boolee mi ngi toll ci deux cent vingt six millions sept cent trente cinq mille quatre cent soixante six euh, euh, makkaan bu bees bi Touba ci kanam euh, di naal tamit ci at mi def nañ ci quatre cent quarante quatre mille francs bu dee kon ci commission réalisation ci atum deux mille vingt et un li ci dem mi ngi toll ci un milliard cent soixante dix neuf millions sept cent dix huit mille sept cent quatre vingt huit un milliard cent soixante dix neuf millions sept cent dix huit mille moom la ci njëkk ci liggéeyam mi ngi tolloon ci juróom-benn fukki daara yu Touba ci kanam doon defaraat doon defar daat mu jëm ci ñu war koo defaral yenn ay mbaar yenn ay wanak yenn ay néeg ñu jël lim juróom-benn fukki daara la ci dem ci at mi mi ngi toll ci soixante quinze millions soixante quatre mille cent bu dee auto vidange yi nga xam ne Touba ci kanam génn leen ko mu itam am na ci ay frais yu xam ne mi ngi toll ci six cent quatre ak yeneen frais yoo xam ne mi ngi toll ci soixante mille euh, daayira Rawdu Rayaahiin ci jamonoy màggal gi Touba ci kanam jàppoon na ci liggéey bi ci mbirum téere yi ñu doon séddale lu tolloog 3 millions 890 mille bi ñuy taxawal kër asaka yi tamit ak la aju ci taxawal baag la ci aju yëpp Touba ci kanam def na ci 3 millions 857 mille 762 tàggat gi ñu doon tàggat sëriñ daara yi ngir ñu gën a xam naka la ñuy jëflanteeg dongo ak lu ci ajoog formation lu jëm ci affaire yoon ak lu jëm ci lépp lu ci mën a xew loolu Touba ci defoon na ci at mi huit millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille kon boo jëlee li aju ci scientifique culturel li jëm ci wàllu daaree njàng mi Touba Ca Kanam def na ci quatre-vingt-onze millions neuf cent cinquante et un mille huit cent soixante-deux quatre-vingt-onze millions neuf cent cinquante et mille huit cent soixante-deux bu dee lu jëm ci communication lu jëm ci mandarga yi li euh, mandargal Touba Ca Kanam mooy autocollant yeeg affice yeeg flyers yeeg siile yeeg li ay ci loolu ak li ñuy liggéeyal li ñuy liggéeyee ci wàllu jumtukaay ci lu jëm ci communication mu ngi toll ci 19 millions 532 mille 800 bu dee contrat yi nga xam dañ ko am ci télévision yi muy palato yeeg rajo yeeg rajo local yeeg rajo gox-goxaan yeeg rajo ci biir dëkk bi ak ci biir réew mi vingt cinq 25 millions 955 mille lu jëm ci euh, yëg soññee yi ñuy def ci télé yeeg plateau yeeg couverture médiatique yeeg bis yi ñu ci taxawal ak vidéo yi ñu ci def ak soññee yëpp mi ngi toll ci 22 millions 983 mille 400 francs kon boo jëlee lépp lu ay ci communication ci atum 2021 mu ngi tolloon ci 68 millions 471 mille 200 bu dee lu jëm ci commission massification mooy commission bi yor wàllu yaatal gi nga xam ni ñu ngi doon def ay karawaan ci biir dëkk bi ay tournée ci biir réew mi dem ci dëkk yu fasanti ko ak café Touba ci kanam yi ñu taxawal ak programme bi aju woon ci màggal Touba gi ak màggal yi ndaw ak màggal yi yeneen yi ne ci biir dëkk bi yëpp loolu li ci dem ci atum 2021 mi ngi toll ci 27 millions 544 mille 27 millions 544 mille bu dee ci commission santé ci at mi matériels yi nga xam ne war na dem ci poste de santé yi desoon ndax poste de santé yi ubbi woon na daanaka ay matériels yi ñu ci waroon yokkaat la am ak ay yeneen frais yu soxla yi ñu ci war a def ak consultation gratuite yi ñu doon def ci màggalu Touba booba loolu lépp mi ngi tolloon ci million 4 millions 784 mille 100. 4 millions 784 mille 100 moo dem ci commission sant bu dee commission environnement euh, ci mballum bale yi bale ne setal gi ñuy setal dëkk bi bu màggal gi jub ak jàppale gi ñuy jàppale soxna yeeg ñuy setal dëkk bi ci yeneen waxtu yi yëpp loolu Touba Ca Kanam def na ci 4 millions 30 mille ci 2021 bi bu dee ci adduction d'eau mooy quartier yi ñu doon yóbbu ndox tam xawoon na sori ndox mi ci juróom benn quartier def nañ ko ci ren mu toll ci neuf million huit cent vingt et un deux cent reboisement mooy njëmbatum garab ak naat ngir naatal dëkk bi ak yu ci aju ak pépinière yu Touba ci kanam taxawal ngir euh, di fa saytu ay garab te am toll ci lim bu bare bëri mi ngi toll ci benn deux millions sept cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent soixante-treize bi jamono nawet bi bëri na yoon yoo xam ne naqari naa jaar lool Touba ci kanam taxawaloon lu tudd opération sëkk yoon yi yoon yi nga xam ne faaw dañ koy sëkk ak yi nga xam ne dañ ko doon faaw nga fàkk ko wala yu mel noonu Touba Ca defoon na ci at mi cinquante huit millions neuf cent mille cinquante un millions neuf cinquante huit millions neuf cent cinq opération wàllu mooy ci jamono bi ñi xam ne dañu doon jàppale ci biir ndox mi ñu ci ngir ñu suñu borom génn leen ci moom itam defoon nañ ci fukki millions bu dee li ñuy woowee opération wàllu mooy ci biir nawet bi kër yoo dëkk ba dëkk fu bëri na ci foo xam ni ndox mi dafa nangoon seen i kër Touba ci kanam nag jëloon ay moto pompo ak hydrocureur yi ma xam ndox mi ak yu mel noonu Touba ci kanam defoon na ci 10 millions kon boo jëlee lu jëm ci commission environnement ci atum 2021 mi ngi toll ci 105 millions 541 mille 673 105 millions 541 mille 673 lu aju ci ñi nga xam ne ñi ngi liggéey ci Touba ci kanam toll ci boo koy xool ëpp na juróom jege na juróom-ñaar fukki nit Touba kanam am na ndàmpaay lu mu leen di jox weeru jot mooy ñi ñu xam ñu nekk Touba la ñuy liggéey ci chantier yi chauffeur yi ak li ci aju lépp ak ci yeneen bureau yi nekk ci yeneen dëkk yi ak location magasin yeeg location bureau yeeg courant beeg yi bu ci aju frais yooyu Touba ci kanam def na ci ak ñiy liggéey ci kees yi ñuy dajalee addi jéeg yooyu yëpp loolu boo ko xoolee Touba ci kanam def na ci quatre-vingt-un millions neuf cent quatre-vingt-douze mille ci at mi quatre-vingt-un millions ci at am na itam ay jumtuwaay yu jógoon Italie yu mel ne ay oto sapeur pompier ak lali hôpital ak ay jumtuwaay yu bëri bëri yooyu Touba Ca def na ci 7 millions 610 mille 600 francs bu dee commission féminine mooy tàggat gi ñu tàggat soxna yi ci wàllu transformation fruits légumes ak céréales maanaam jàngal leen ay tàggat ci formation loolu Touba def na ci deux 2 millions 863 mille bu dee commission membre mooy. carte yeeg carte reçu yeeg carte membre yi ak li ci aju Touba Ca Kanam dafa nekk douze millions cent trente un mille cinq cent quatre vingt cinq commission organisation mooy lu jëm ci bi ñuy ubbitee ubbi ñetti poste santé yi ak bis yi ñuy taxawal ak lu ci aju Touba Ca Kanam def na ci six million neuf cent quatre vingt mille sept cent commission administrative muy matériel bureau yi du jëm ci bureau yu bees yi ñu taxawal ak chaise Touba ci kanam beeg table yeeg machine yeeg imprimante yeeg li ci ajoog loo xam ne ci loolu la aju Touba ci kanam def na ci onze millions cinq cent quatre vingt mille sept cent vingt-cinq bu dee lu jëm ci social muy dimbalante ci biir askan wi ci commission sociale Touba ci kanam def na ci cinquante-huit millions sept cent trente-trois mille cinq cent ci jamonoy mbënd mi tamit sëriñ Mountakha yàlla na fi yàgg te wér génne woon na ci joxe woon na ci Touba ci kanam fanweeri million muy 30 millions Touba ci kanam tamit yëkkati woon na juróom fukki millions yoo xam ne dañ ko doon séddale lu toll ak juróomi téeméeri kër juróomi téeméeri njaboot yoo xam ne dañ leen jàppale woon yoo xam ndox mi nangoon na seen kër Touba ci kanam jàppale woon leen ko kon lu jëm ci wàllu social ci lii ma lim nii kon loolu boo ko boolee day doon 110 millions 733 mille 500 110 millions 733 mille cinq cent am na ci frais yoo xam ne tamit yenn ni ay frais de mission la yenn yi tamit ñoo xam ne dañoo wàccu liggéey ci biir réew mi ba ci sax bitim réew am na ci sax ci ñu jógee ci bitim réew ñu leen doon taxaw loolu Touba ci kanam def na ci ci atum deux mille vingt et un quatre millions cinq cent quatre millions deux cent cinquante six mille deux cent cinquante quatre millions deux cent cinquante six mille deux cent cinquante frais bancaire mooy li xam ne banque yi dañ koy jël di ko indiwaat li mën naa ko ca njëlbeen ga loolu def Touba Kanam dugal na euh, génn na ci sept cent vingt sept mille six cent quatre vingt et un bu dee ci commission logistique ci atum deux mille vingt et un Touba Kanam dafa jënd ñaari cabion citerne cabion ndox oto ndox yu mag boole koog frais entretien yi ak beneen pick-up 4x4 moom itam Touba Ca Kanam dafa ko jënd ci atum deux mille vingt et bi ak groupe électrogène ak yi ci aju mooy assurance yeeg. essence yi dem ci oto yi maanaam mboolem essence bu ñu jëfandikoo rek moo xam dafa dem ci moto pompe yi ci bi ñuy génne ndox mi moo xam dafa dem ci oto yi moo xam dafa dem ci machine yi moo xam dafa dem ci euh, machine yi lépp boo ko boolee ci atum 2021 li ci Touba ci kanam def jaare ci commission logistique mi ngi toll ci 165 millions 442 mille 628 165 millions 442 mille 628 bu dee frais divers mooy sew sewaan yi ak yenn détails yoo xam ne dafa tuuti bopp kenn mënu ko lim noonu waaye lépp am na justificatif deux millions huit cent quatre-vingt-deux mille francs kon bu ñu ñëwee ci total encaisse décaissement li génn ci compte Touba ca kanam te waxoon naa ko ci njëlbeen muy un milliard huit cent soixante mille six cent quatre vingt moo génn ci compte Touba ca kanam ci atum deux mille vingt et un un milliard huit cent soixante-dix-sept millions six cent dix-neuf mille six cent quatre-vingt-douze bu dee ci tënk. ci atum deux mille vingt et un Touba ci kanam encaissé na ci maanaam dajale na ci un milliard sept cent quatre vingt trois millions cinq cent vingt sept mille neuf cent quatre vingt dix sept waaye atum deux mille vingt deux mille deux mille vingt bi muy jeex fekkoon ci compte Touba ci kanam lu toll ci huit cent soixante dix millions soixante dix mille sept cent nekk ci huit cent soixante dix millions soixante dix mille sept cent soixante nekkoon ci kon boo boolee li duggoon. li fi nekkoon ci atum deux mille vingt fekk si li ci dugg ci atum deux mille vingt mooy li ma lim léegi kon da doon day doon deux milliards six cent cinquante trois millions six cent mille sept cent cinquante huit deux milliards six mille sept ci biir lool nag boo ci génnee li nga xam ne Touba ci kanam décaissé na ko mooy li génn ci compte dem ci liggéey bi ci atum deux mille vingt et un mu toll ci un milliard huit cent soixante dix sept millions six cent dix neuf mille six cent quatre vingt douze un milliard huit cent soixante-dix-sept millions six cent dix-neuf mille six cent quatre-vingt-douze kon 31 décembre 2021 bii ñu génn li nekk ci compte Touba ci kanam mi ngi toll ci 775 millions 986 mille 66 francs 775 millions 986 mille 66 francs euh, mbokk yi kon ñu leen di sant di leen gërëm di feddliwaat rek ñaan di ñaanal Serigne Mamoun Gadiaga ni nga ko ubbee woon ndax at mi liggéey bi ñu nekk moo ko tàmbaloon waxoon naa ko ci njëlbeen gi di ko ñaanal suñu borom di sàkku tam fépp fu nit fu mu fu mu mbooleem fu nit nekk mu defal ko ñaan suñu borom dolli ko njëggal ak yërmande te yàlla sàmm liggéey bi sàmm kilifa yi liggéey bi ba ni ko sëriñ bëgg ñu amee ko ni allahumma salli ala sayyidina muhammad wa